salaamaaleykum mbokk yi xibaaru tàkkusaan si li si nar a gën a fës bokk na ci li ci nar a gën a fës doomu sénégalais yu nekk foofee ca Genova ca Italie gis nañ ne nag lu jëm ci wàllub mbas mile dafa daal di tàggatee mbel seen liggéey ba tax fi mu ne nii la sàkku bokk na ci ci ñetteelu xaajub wala boo ko sumbuku mbas mile ñu daal di xool ananes la ñu def ba daal di fexe rek ñu delloo si leen ndaxte du la ñuy dundee foofee dafa jéggi dayo ba bunatuñ fa nekk loole dinañ ci ñëw ci yatalu xibaar yi mbas moomee sax fii ci mim réew lu toll ci fukki nit ak ñaar ñoo ñàkk seen bakkan bees ñaari ak juróom ñaar fukk benn ñoom ñoo ko amee bees yitam lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent kenn ci ñoom xamul fan la ko jëlee loolee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi. dinañ àddu itam ci la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu coowal Ousmane Sonko boobee nga xamante ne pënd ba wëreegul saa su ne amay kàddu yu ci jóg ak it taxawaay gi nga xamante ne gis nañ ko ci loole boole ci itam yeneen xeetu xibaar wax sa xalaat lu ñuy waxtaane bokk na ci mbas mi taxaw mbas mi ban taxawaay ban jàngat ak itam nees la ñu def ba daal di fexe mu deltu ginnaaw ci mim réew boole ko coowal Ousmane Sonko boobee ak ndaw soose nga xamante ne moom moo koy topp ne da ko biti réew 33 841 22 33 Assane Thioune moo féete ci xarale gi. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ak mbooleem suñu bànqaas suñu lëkkaloo tey nekk àllarba yemboog fukki fan ci weeru février atum ñaari junni. ak ñaar fukk ak benn xibaar yi ginnaaw bi ñu leen nuyoo doore ko ci compagnie nationale Air Sénégal mi nga xamante ne niki tey jii nag la daal di xamle ne dina daal di fexe ñetti vole ya nga xamante ne roplaan googee dina ko def dem dikk diggante Ndakaaru ak Barcelone jaari Casablanca loole nag ñu fa yéene ko door ni ko fukki fan ak juróom benn ci weeru février gi ñu daal di dégg ñu daal nekk. Eh, ki ko xamle di directeur général bu kër googee di Ibrahima Kane jàpp ne nag li ni mel dañ ko daal di tànn ngir rek daal di fexe door la nga xamante ne moom mooy yoon wu bees boobee eh, bu ko defee ñu daal di fexe lépp lu jëm ci wàllu koom gimil la nga xamante ne moom mooy tourisme ñu daal di ko suqaliwaat ndaxte gis nañ ne nag la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu mbas mi moom moo fa jaar ba fi mu ne nii moo ngi ci ay buntu biime ci noone ñu daldi àddu itam ci doomu Sénégal ya nga xamante ne ñoo nekk foofee ca Genova ca Italie ñoom nag ci njàqare ak euh, dund gu metti lañu fa daldi nekkee te leen waralu ko lu dul mbas mi ak ay loraangeem ñoom la ëpp ci ñoom nag gis nañ ne nag ñaar ñetteelu sumb bu vague bile dafa gën a ñëw rek daal di biimel seen nekkin ak seen doxalin ba tax rek ñoom jàpp nañ ne nag dellu si fii ci Sénégal moom moo leen gënal fuuf ñu des foofee di dund ndaxte nag la ñuy dund foofee jéggi na dayo kenn fa ñoom di Assane Cissé ñu teewlu ko ci jokkoom ak Mame Diarra Da Silva. Moodu yi nag euh, fii bi ma ci waa ma nekk nii euh, moodu yi lu ci bëre ci njaay mi lañ nekk. Euh, te njaay mi fi mu nekk nii ñi ñi war a jënd wu ñu nekkee ci ay jafe-jafe yow da ngay da sa njaay mi du demee noonu euh, moo tax fi mu nekk nii lépp taxaw lépp a taxaw ñii liggéey itam euh, même problème la ñu am mooy que nit ki bu dee da ngay liggéey sa contrat jeex ci diggante bi ci biir mbas mi gars yi duñ la ko renouveler loolu mooy problème bi bu dee renouveler wu la nag da ngay toog kër ga tonk xaalis du dugg donc te mënoo dem jaay itam loolu mooy euh, problème yu Modou yi di am fi ak euh, ñii liggéey itam c'est pas c'est pas c'est pas parce que ñiy liggéey ñoom ñu ngi continuer liggéey am na ñoo xam ne ci activité yi ñuy nekk da ngay da ngay dem cassa integrazione mooy que nga nekk sa kër ñu lay fay euh, quatre-vingt pour cent ci sa salaire ci sa am-am duñ la fay cent pour cent am na ci ñoo xam ne da ngay def quatre heures de temps parce que dañuy wàññi say heure ca am na gymnastique financière yu gars yi di def mun cee gën mais actuellement pour wax dëgg rek euh, mbas mi métti na trop ci Moodu yi métti na ci ñëpp. beneen problème yi ñu fi am problème mu kii la problème mu mag yi fi nekk nga xam ne amuñ suñu doole mënatuñu liggéey mënatuñu def dara ñu ngi toog fii bëgg nañ ñibbi Sénégal waaye seen doole yàggul seen gannaaw bëgg nañ dem waaye amuñu ku leen taxawu. ak tam am nañ des fois dañuy am problème ku ñu taxaw bu ñu nekkee ci ci yenn difficulté yi. mesures yu autorité yi jël nag mooy couvre-feu à partir de vingt deux heures ba ba cinq heures du matin. réduction à cinquante pour cent bu remplissage euh, bus yi. ouverture des. baar yi ak restaurant yi ci normes yi nga xam ne défini par le ministère de la santé et ses techniciens ndimbal boo xam ne ay bonus yoo xam ne ñoom dañ koy jox les familles qui sont en difficulté blocage yu licenciement yi mooy sa liggéeykat si bu am contrat bu indéterminé wala affaire yooyu noonu munoo koo licencier si sa njortu bopp fi nekk nii lu dul bu 31 mars jotee kii dox mbokk bi dox mbokk bi tam dañ ko réglementé ñaata nit ñu war a recevoir sa biir a nekk ci biir saal ak yooyu noonu yooyu yëpp dañ ko réglementé dañoo tere tam dem beeg dikk bi diggante dëkk ak dëkk. di kaddu Assane Cissé kenn ci doomu sénégalais yuy dund foofee ca biti réew rawatina ca Senofa foofee ca. Italie mbas moomee tolluwaayam diggante démb ak tey fii ci mim réew fukki nit ak ñaar ñoo ci ñàkk seen bakkan bees ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn amee ko bees itam lu toll ci ñaari téeméer ak ñeent kenn ci ñoom xamul fan la ko jële yëf yi nag ñoo ngi gën a alawtiku diggante Kaolack jàpp Louga docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ci ay leeral. ci junni ak juróom benn téeméer ak juróom fukk ak ñett test yi ñu ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ñoo ci positif. ci positif yooyu.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 juróom ci Pikine juróom ci ci Mbirkilaan ci Jëppal Kër Masaar ak Ziguinchor ñeent ci Ngor ak Pikine ñett ci Diourbel Golfe Sud Kédougou Ndofane Ouest Foire Pout ak Yoff ñaar ci Diamniadio Fatick Foundiougne Grand Dakar HLM Kolda Koungheul Linguère Matam Mbour ñaari Tali Nioro ak Passy benn ci Almadi Bambey Cité CPI Cité Douane Cité Padia Cité Gadaye Fann Gibraltar Grand Yoff Gueule Tapée Guinguinéo Kébémer Kounoune Liberté 5 Malem Hodar Mamel Mermoz Ouagouñaay Ouakam Parcelles Assainies Point E Sacré-Cœur Saint-Louis Sicap Baobab Tivaouane ak Zac Mbao ñaar téeméer ak juróom-ñett malade ñi nga xam ne dañoo entré woon hôpital wala ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bës ni tey dinañu génn bu si yàlla àndee juróom-benn fukk ak benn malaad ñoo nekk réanimation fukk ak ñaari malaad ñoo ñàkk seen bàkkan ba su démb talaata juróom-ñeent fan ci weeru février bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na ñaar fukki junni ak juróom ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak benn ñaa xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni ak ñeent ak ñett téeméer ak juróom fukk ak benn wér nañ si juróom-ñaar téeméer ak fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des ñeenti junni ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar si lalu hôpital yi. docteur El Hadj Mamadou Ndiaye ci mbas mi la doon àddu mbas moomee sax coowal Ousmane Sonko bi da ko muur ñaari fan yi ñu génn loole moom mooy jàngatu ki nga xamante ne nag xam-xamam dafa màcc ci wàllu pour tàggatum taskatu xibaar yi di Lamine Touré hmm, daal di na ko fësal ci jokkoom ak Marie Rosalie Ndiaye. ñaari fan yoo xam ne xibaar bu laale ak mbas mi di Covid 19 kenn defu ko à la une coow li soxal Ousmane Sonko ak Adji Sarr tax na ba xibaar bi aju ci mbas mi daal di nax saay te moo ne day bés bu ne mu faat ay bakkan yu bëri mu mel ni taskatu xibaar yi dañoo fàtte lu ñu duppee critère de permanence bu ñu sukkandikoo ci journaliste formateur bii di Lamine Touré. critère de permanence mooy problème boo xam ne bi dafa nekk fi c'est sax c'est comme fii par exemple bu ñu waxee euh, chômage critère de permanence la nee mendicité critère de permanence la nee famine quelque part. critère de permanence Covid bi rek critère de permanence la daf fi nekk nga xam ne bii euh, dafay ñëw tey rek bu subaa mu dem mu nekk actualité bu jeex non dafa am benn euh, liggéey boo xam ne journaliste dañu ko war a def informé waaye itam dafa am liggéey derrière boo xam ne dañu ko war a def muy sensibiliser. loolu moo tax xëy na certainement. journaux yi xaw nañ ko dasaxal fan yi waaye nag warul tax ñuy soofantaal yenn xibaar yi nga xam ne dañoo amal solo lool askan wi. waaye information sonk bi moom moo bees. waaye tam journaux yi da ngeen di xam ne. tam dañuy jaay lu ñuy jaay mooy li ñuy jënd li ñuy jënd mooy li nit ñi xam li ñuy bëgg gis nit ñi fi mu nekk nii affaire Sonko bi soxal na leen parce que bëgg nañu xam na nu muy demee te comme am na autour de affaire bi ay violence am na ay ay dafa am lu bees dafa am suivi bu ñu war a def loolu moo tax journaux def suivi bi hormi sax mbirum xaalis bi ñuy am si jaay journaux waaye dafa war dañu war tenir au nit ñi ci li nga xam ne affaire boobu mu ngi évoluer. journaliste formateur bi di Lamine Touré di fàttali ne bokk na ci ponk yu ñu war a jiital bu ñu dee tànn xibaar yu ñu war a wasaare dëgg. proximité njëriñ li ci am ak it lu ñu duppee critère de permanence mi nga xam ne moom la ñu war a jiital ci lu soxal mbas mi nga xam ne lëmbe na àdduna werngel këpp Marie Rosalie Ndiaye ci noone la ñu des coowal Ousmane Sonko boobee lu ëpp ci partie yi nga xamante ne ñoo nekk ci kuje gi ak it lile di société civile lu demee ni FNR yoonu askan wi taxawu Sénégal congrès de la renaissance démocratique ñoom ñëpp nag ñoo ngi dem jàppal tànk kile di Ousmane Sonko ñoom nag dañoo jàpp ne nguurub Sénégal dafa jóg rek ngir daal di ko faagaagal euh, tënk li ci jàngatu Adja Issa Front de résistance nationale taxawu Sénégal LD bu Congrès de la Renaissance démocratique wala sax yoonu askan wi ñoom ñépp ñoo taxaw jàppale ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko gannaaw bañ ko jiiñee sàkku parti wala mbootaay parti nekk ci opposition yi ñoom ñépp ñoo bokk nu ñu gisee mbir mi nee nañ daal régime bu fi nekk li muy jéem moom mooy faagaagal ak nasaxal koo xam ne mën na jàmmaarloog ñoom ci langue politique bi Front de résistance nationale sax di fàttali li dal Karim Sall ñii ñu tëj leen ñii ñu génnee leen réew mi nee nañ loolu démb la xewoon tey Ousmane Sonko la ñuy fexeel te loolu ñoom ànduñu ci benn yoon ba tax na dañuy laaj askan wi yëpp jug taxaw jàmmarloog jëf bi ni mel taxawu Sénégal di ko dëggal ne nag régime Macky Sall tàmb naa jëfandikoo yoon ngir daal dina saxal ab adversaire LD bu ne waaw wax ne sax li ñuy tuumaal ci di Ousmane Sonko du lenn lu dul lu ñuy jéemee euh, fexeel ab adversaire politique te loolu dafay nasaxal démocratie ci ab réew CRD di congrès de la renaissance di laaj sax gannaaw ñooñ ñëpp kan moo ci nar a topp ba tax na CRD di laaj ñëpp boole seen doole ngir jàmmaarloox dynastie fay Sall yoon askan wi gis ne li ñuy topp Ousmane Sonko jamono yi du lenn lu dul ab plan boo xam ne dañ ko tëral ngir jëlee fi ab opposant te jàpp nañ ne sax régime Macky Sall tàmb naa jëfandikoo bu dul guerre jël rek yoon teg ko sa kaw ngir fexe ba kenn du jàmmarloog ñoom ci làngu politique bi euh, looloo tax opposition bi yépp ci seen déclaration daal di taxaw ci wetu Ousmane Sonko euh, fas yéene ko jàppale jàmmarloog régime Macky Sall waaye ci ban anam la ñu fas yéene amal xeex boobu. lu toll ci ñeent fukki ndaw ya nga xamante ne nag dañoo demoon di manifester ak ay sànni ak xeer foofee ca kër Ousmane Sonko daal nañ leen tëggub loxo nag ña nga xamante ne moom mooy yor lépp lu jëm ci wàllu jokkalante ci parti boobu jàpp ne nag xeetu xor ñooñal ak mettital gune ñoo ngi koy def gune yooye ba tax ñu daal di sàkku nu mu gën a gaawee ñu bàyyi gune yooye nga xamante ne defuñ dara lu dul rek fësal seen ànd ak kile du usmaan Sonko El Hadj Malick moo ci àddu amaana teewlu ngeen ko ci suñu xibaar yi. ñu daal di génn dinañ ci gën a àdduwaat ci suñu xibaar yi ñu dëgmal ci xibaaru français yi ngeen ànd ceeg ay satu géy ba fii ci site kër góor gi ñaari fan wala ñetti fan ginnaaw sa nga xamante ne nag coow loole daal dina fi ne coob booy fii ci euh, cité kër góor gi takku deri ñoo ngi fay des ba nege ni di saytu xool ana ñan ñooy dugg ak ñan ñooy génn Ismaïla Marcel Koli ñaar fan ginnaaw affrontement yi amoon diggante takk der yi ak militant Pastef yi lu ñu nemmeeku ci biir cité Keur Gorgui mooy alkaati yi ñu ngi ci bëpp tali bu jëm ci kër Sonko mu doon lu bees ci bile cité bu ñu sukkandikuwee ci ki ñi dajel fii moom danay raba tas poussière bi saxaar yi xeer yi doo xam ak gars yi ak gars yi Sonko yi ak policiers yi. man yàgg naa fii lii moom mu mu mësul am fii si dëkk bi c' est la première lii am fii lii yëpp jaru ko. xiiroo xaay yëpp jaru ko ñun daal yi ñaan na jàmm am si dëggante. mu wutee loolu gis-gis ak xale góor bi ñu fekk mu taxaw ci buntu këram mu ñuy xamal ne te waaye alkaati yi ci bile cité lu ñu rafetlu la parce que day gën a yokk karange gi ci bile gox. rafet na bu baax. on se sent en sécurité et je tiens à leur remercier de ça parce que si par exemple il y a une manifestation tout de suite ici et qu'il y a des passants, on peut les confondre à ceux qui manifestent et les amener pour rien. Donc grâce à eux, on a ce témoignage qui, nous permet de distinguer ceux qui manifestent et, et pas. Donc pour ça, je les remercie beaucoup. ci fàttali alkaati yu bëri yu nemmeeku ci biir cité Keur Gorgui lenn waralu ko lu dul jaamarlo bi dox diggante alkaati yi ak militant Pastef fii alterne bi passé noone eh, kii di Ousmane Sonko eh, luñ koy toppee bokk na ci eh, dañ koy jiin yekkataan ak itam daal di xupp nit ki ne dina fàtt bakkanam Ousmane Sonko nag dapp jàpp na ne laata muy ji yoon faw ñu dindi mbalaanu kirlaayam ba ci assemblée nationale niki ëllëg sax la national nationale fas yéene ndaje amaana dina addu ci loole bu midi jotee mm, tax na rek ñu daal di dellusiwaat la nga xamante ne moom mooy euh, député yi nga xamante ne daal di nañ laale ak nguur ba ñu mujjee simmi seen mbalaanu kiir lay ñu ànd ceeg Abdoulaye Diop. député bii di Ousmane Sonko ginnaaw ba ñu ko planté jëm ci viol ak menace de mort bu ñu moyul mbalaanu kiraayam dinañu ko yëkkati ay bés ñu daal di dëdmal li ni mel ginnaaw ba ko gendarmerie daal di woowee su fekkee li ni mel antu na mooma njiital Pastef patriote nag du nekk député bu njëkk wala bu mujj buy gis ñu daal di yëkkati mbalaanu kiraayam ndax ci fàttalu ginnaaw ba ñu ko toppee jëm ci coowal caisse d'avance daal di koy daan député maire bi Khalifa Ababacar Sall moom it yëkkati woon nañ mbalaanu kiraayam député yi defoon li ni mel ñaar fukki fan juróom benn ci weeru novembre atum 2017 benn at ci ginnaaw ci novembre 2016 député yi itamit daal di woon nañuy dindi malaanu kiiraay bu Barthélemy Diaz li ni mel sax moo taxoon ñu daal di amal procès bu maire bu meer Mermoz Sacré-Cœur ñu ko doon toppee rek jëm ci faatub bakkan Ndiaga Diouf li ni mel xewoon ci décembre 2011 ginnaaw ba ñu congee bokk moomeelam boobee li ni mel yemul ci ñooñee ndax ci janvier atum 2013 ci jamono yoo xamante ni réew mi ñu ngi nekkoon ci toppuk Euh, ameel goo xamante ni dañu ne jaarul yoon pencum ndaw réew mi yëkkati woon na itamit mbalaanu kiiraay ñetti ci ay député bokk na ci Abdoulaye Baldé Oumar Sarr ak maître Ousmane Ngom yoon sax daal di sàkk woon na loole ngir mën leen a déglu jëm rek ci jëlaat bépp alal gu ñu ne lewul te ñu amoon ko ñoom ñooñee waaye nag yoonub Sénégal léeg du soxla sax sàkku ci pencum ndaw réew ma ñu daal di yëkkati mbalaanu kiiraayu député kii ko fi nekkoon di Seydina Fall Bougazelli ñu tuddoon ko ci atum dogal tekki ndooma tànkam député ma ngir rek mën a wuy ji lii di yoon ñu àddu ci beneen mbir bokk na ci l'armée Sénégal bi nga xamante ne moo ngi sekk ay jéego foofe ca biir Casamance rawatina fi nga xamante ne foofee la defkatu ñaawte fi gën a toog bokk na ci ca Sinkun ak yeneen base yi nga xamante ne nag waa MFDC di mouvement des forces démocratiques de la Casamance ñoo ngi fa doon toog di def ak ñaawteef ki démb nag am na lu bëri ya nga xamante ne l'armée bi daal dina ko nangu benn Michel Kanfoudi base rebelle bu Sinkun mu ngi ci loxo groupement tactique interarmes bravoure bu commando yu Thiès ci njiitalu lieutenant colonel Clément Hubert Boucal bokk na ci yu gën a am solo ci combattant yu mouvement des forces démocratiques bu Casamance. cantonnement boobu nga xamante ni ci atu guerre de libération yi bokkoon na ci position yi gën am solo ci PAIGC parti africain de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert mu ngi ci loxo way fipp yu MFDC ay ati at base Sikundoo bi nga xamante ni mu ngi ci balanta Balantakunda nekk ci département bu Goudomp nekk na itam état-major ci benn ci faction yi nga xamante ni moom la mouvement des forces démocratiques de la Casamance MFDC ama ci ñu ko jiite woon nag bokk na ci ay kàngam yu mag yi nga xamante ni woon nañ leen ci way fipp yu MFDC ci ñooñu nag ñu nemmeeku si ndem si yàlla Ousmane Niantang Diatta moom mi nga xamante ni sax moo ko yëkkatiwaat gannaaw bu saa ju jógee ci zone boobile Ousmane Niantang Diatta ki ko fa wutu woon mooy Ibrahima Compass Diatta gannaaw bi Adama Sané daal dinay jël commandement bi ci at yu mujj yi Sikun nekkoon nay tamit benn sanctuaire mystique bi nga xamante ni combattant yu MFDC yi dañ fa daan faral di préparé wu bu baax a baax ci wàllu xar fa fufa base rebelle boobu nekk ci digg àll bi te yàgg fa nekk lu jafe lool résisté na ay yoon yu bëre ci assaut yi nga xamante ni armée bi dañ ko daan faral di amal foofu waaye nag tey ji daal dinay daanu ci loxo yu bataillon commando bu Thiès commando yi nga xamante ni lieutenant colonel Clément Hubert Boucal moo leen jiite ki doon jokkoo ak fii ci diwaanu Ziguinchor Ben Michel Confoudi pour Sud Ben Michel Kanfoudi ca booba jamono waa météo ñoo ngi yëglu niki aljuma gi la ñu dëgmal yemboog fukki fan ak ñaar ci weer wile lu dale midi jàpp dibéer fukki fan ak ñeent ci weer wile bu midi jotee itam ganax gu am solo bu mun a weesu ñetti meetar ci kawe dinañ ko nemmeeku diggante Ndar ak Ndakaaru euh, ci fi nga xamante ni itam moom mooy lu dox ci diggante Mbour Petite Petite Côte bi ak Casamance foofee itam Euh, dina toll ci ñaari meetar ak lu tekk gis nañu itam lu jëm ci wàllu gis gi dina wàññeeku bu baax a baax ba tax rek ñuy daal di yëglu ci fànn boobule rawatina nappkat yi nga xamante ne fas yéene nañoo tëmb ñu daal di ci bàyyi seen xel bu baax a baax ci noonu itam association bi ëmb ña nga xamante ne dañoo loru. ci ñu daal di woon faat ci nguurub Hissène Habré daal dina yëkki ay kàddu ginnaaw bi nga xamante ne jot nañ ay xibaar ne yee Euh, jabar kii di soxna sa Ibe Hissène Habré ak ña koy jàppal tànk dañu demoon seeti ji yenn kilifay politique ak kilifay diine fii ci Sénégal ngir rek ñu mën a jégal kili di Hissène abre nekkoon njiital réewum Tchad te ñu ko fi daal di tëj ñoom nag daal di nañ sàkku ñu fonk la nga xamante ne moom la tribunal daal di wax di bokk ci chambre africaine extraordinaire ak itam lu warloo gi nga xamante ne nguurub Sénégal daal dina ko warloo ak xaatim yu dox seen digg ak yeneen réew yu nekk ca biti réew Hissène abre nag dafa war a daal di tëdd giiru dundam li nga xamante ne moom lañ ko daal di tëj association boobee nag moo ngi fàttali ne nag Sénégal dafa am yi nga xamante ne jot na ko xaatim ak yeneen réew ci wàllu po international te waru ko salfaañe ba tax rek ñoom ci seen wàllu bopp bokk na ci chambre africaine mi daal di woon a dogal ne kile di Hissène abre dafa war a fay lu toll ci juróom-ñett fukk ak ñaar ci ay milliards ci suñu koppar ci lu toll ci juróom-ñaari ak ñetti ak juróom fukk ak juróom-benn nga xamante ne dañoo jàpp ne kii la di Hissène Habré da leen lor ci seen nguur. Euh, noone lañ ko daal di xamle ca biti réew ba nekk nii itam euh, ca Guinée la ñu jëm foofee ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa teewal kii la di Ousmane Sonko daal nañ yëkk ay kàddu foofee itam jàpp ne euh, kii di président Macky Sall dafa jóg ngir rek daal di gàntal bépp euh, kuje gi nga xamante ne jóg na rek ngir daal di ko euh, taxaw kanam loolee ki ko xam ne bokk na ci Faly Diémé mi daal di sàkku ci Sénégalais yi ñoom ci seen wàllu bopp ñu daal di feexee xeex ngir rek ñu bañ a faagaagal li leen di démocratie di ngeen ci ànd ak suñu ndaw la fa di amadu Ouri Diallo foofee ca Guinée Conakry ca itam gis nañ seen ñaari doom daal dina ñàkk seen bakkan euh, bokk na ci kile di Laurent Dona Flogo nekkoon jëwriñ gu ñu ancien ministre di président Félix Houphouët-Boigny ak kile di secretaire général PDCI RDA di Tcha Koné nekkoon itam président cour suprême bu réewum Côte d'Ivoire ñoom nag gis nañ lu jëm ñu moomee sax moom moo rejeté woon candidature Alassane Dramane Ouattara ci présidentielle bu 2000 ñaar ñooñee nag fi mu ne nii ci wàllu politique dañoo ñàkk seen bakkan ni talaata euh, talaatay démb jàpp aljuma gële ñu génn di ngeen ci teewlu nu mu gën a yaatoo suñu ndaw lu ñu fa teewal foofee ca Abidjan di Justin Assalé 18h bu jotee kii la di Aïssatou Gueye ba ñëw ak yéen ci xibaar yi ci yaatal ci france lay doon. ñu bàyyi leen ak Assane Thioune ngeen wéyande ak seen programme seen rajo.